man Aliou Diouf lañ may wax eh, dëkk dëkk bi ñuy wax Diouroup eh, Diouroup dans le département de eh, ko laajee xalif général Sëñ Mountakha dafa am benn institut islamique boo xamante ne moom la ñuy defar ci Diouroup ba daanaka boo seetee liggéey bi tàmbale na loolu yëpp nag cib taalibe ak cib yërëmante ndax kilifa gi moom dafa gis ne yokkuteb jurub dafa laaj ñu jàngal xale yi eh, xirtal leen ci diina te loolu mooy taxawaayam ci Sénégal yëpp mën naa wax ne sax ci àdduna bi yëpp tax na ba institut boobu itam mu ngi koy taxawal ci jurub yàlla def itam mu teg ko ci sunu loxo eh, daanaka boo seetee place bi mu ñu jox place bi nga xamante ne bi mu ñu ko bi mu ñu ko bi nga xamante ne moom lañ ñu joxoon ndax eh, xam nga jurub dafa xaw a am jafe-jafe suuf maanaam foo xamante ne institut bi mën na faa xëj daal fu yaatu woon xëy na bi commune bi gisee ne place biñ ñu war a jox daal place bu yaatu la finalement fi ñu gisoon ne foofu la institut bi xëj dafa laajoon liggéey ndax dafa doonoon place boo xamante ne place su kamb yu xóot a xóot sax daanaka euh, yàlla def itam biñ ñu ko attribué léegi ñu ñëw euh, diis ko xalif bi. waxtaan waxtaan moom ne jot nañ kayit bi kayit bi itam jaar na fi mu war a jaar yëpp bi jot nañ ci kayit bi waaye nag béréb ba dagg dafa laaj liggéey yàlla def itam mu boole noog koo xamante ne ab taalibe la moom ni nun euh, muy Serigne Gueye Diop le maire de Sandiara léegi moom itam mu yebal si foofu ay machines yoo xamante ne wax dëgg yàlla def nañ liggéey bi nu mu gën a rafete ndax def nañ terrassement bi ba place ba daal wax dëgg yàlla macha allah boo ko gisee léegi ku la woon ay kamb yu toll noonu sax mosoo gis kamb yi dañ koy weddi léegi nag euh, fu mu nekk nii ñu ngi ci euh, plan yi euh, ingénieur bi mu ngi defar plan yi léegi bu plan yi paree rek ñu indi ko ci xalif bi xalif bi bu ko approuvé rek liggéey bi tàmbale incha allah mais Sëñ Cheikh ñëw na doomu doomu xalif bi ba def pose première pierre bi waa Diouroup yëpp nag di tàllal loxo sëriñ bi ngeen di ko ñaan daal mu yokkuñu ñu ñaan te yokk jàppale ndax dafa am benn bés ñu ñëwoon fii Euh, jàmbatoon ko lool tilimaayu dëkk ba yàlla def itam mu ne ñu incha allah dinaa ci taxaw ni mu waree ndax xale yi dañ leen war a jàngal dañ leen war a euh, xirtal ci diine te yaakaar naa taxawaay boobu ba tey Sëñ Muntaxa mu ngi ciy jàppale bu baax a baax bi gis nañ te yokkute bu wér a wér a wér ndax wax dëgg yàlla li jëm ci wàllu taalibe ah ñu ngi ci mbaaxu xalif bi la ndax moom dafa bëgg defar ñëpp te incha allah e man de am naa yaakaar ci ne waa Diouroup moom daanaka jot nañ seen wàll incha allah donc maa ngi ñaan ñëpp taalibe yëpp ñu gën a laxasaayu jublu ci liggéey bi xam ne daal Sëñ Muntaxa jox nañu loxo te nañ ko wuyu ñëw jàpp ci liggéey bi te gunge ko ndax moom mooy Serigne Touba te Serigne Touba Euh, jamono jiñ toll nii tembe ak jamono yu njëkk ya sax mën nañu wax ne leneen newu fi lu dul Serigne Touba barke borom Touba yal na yàlla yàggal Serigne Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak weer ñun day kontaan nañu ñun waa Diouroup te wax dëgg yàlla euh, bu liggéey bii euh, ni ma la ko waxee sànq bu fekkente ne tàmbale nañ ko ñu ngi woo ñëpp taalibe yi yëpp Diouroup ak li ko wër yëpp mën naa wax ne toute la région de Fatick ñu ngi leen di woo ndax institut islamique du waa Diouroup kese. taxul mu jog actuellement euh ñu ngi défar plan yi plan yi en même temps mook devis estimatif bi ñoy ànd mais xeyna ñu ngi am nañ am nañu à peu près euh, ay estimation yo xamante ñu ngi koy def ñun mais xam nga li gëna wër ci talibé mooy ci ndigal rek lañuy wéy tay tay ji bu fekkente ne plan yi paré nañu ñun dañuy delsi wat ci xalif bi mom mo ñuy wax naan mbir mi nii lay démé ànd ta ci ni ñu défaré plan yi. nii lay demee ñu wey ci loolu ñun moom amuñu dara la ñuy décider dañuy dañuy wéy ci ndigal rek incha allah.